moom nee na du ko bett nee na yaakaaram lool ci moom waaye dafa dolli nee na xolam sàddal ci moom bii xelam it dalal na ci moom naka jëkk nee na xalaat di nit fu mu ci mënoon a toll suñu borom doole ko ci lu kawe kawe jox nee ak wér jiitu ci ak fan bu gudd gudd ànd ak kattan ba mu gën nekk ci liggéey nee dafay delloo dëkk rek xam ne si si xam nee na wala li moom nee na li mu ciy doon ci jataay bi nee na di leen seeral yeesal teem yeesalam bu muy gën a yeesal jaayam teem ak sëriñ bi أخصيانكم gën a fas yéene fàttali ak laxasaay fas ko yéene ànd ak yéen kon jërëjëf nee na am na ci ab soññ bu bëri ak xel mu daw bu tee ak rafet lool lool jëlee seen i mbir yooyu biir ak yooyu bitti seen mbir tey ak yooyu ëllëg lépp dana yéwén

sa jëwriñ ji nga àndal di cheikh Mouhamadul Bachir Mbacke mii ngir moo teg si woon xeer wi ba xeer wa jàlle da koo ànd ak nun saa su ne muy ñëw di ñu seet si di ñu soññi di ñu ñaanal bam nu joxee ndigal li itam yët ñu plan bi Cheikh Sidi El jox nu ko moom mii mu indi plan bi lan la waxoon lan ko waxoon na ko ñaanal na ko ci ci dara darajey Serigne Touba yàlla defal nañu ko ci kon noo koy sant bu baax sëriñ Moussa sa jëwriñ jiitam ñëw ne fii am na fi lu ëpp waxtu sant bu baax ñaanal nu noo koy sant bu baax ñoo ngi gërëm ñëpp liggéey bi nag Mbàkke liñ ci ñaan la Serigne Touba waxoon Cheikh Issa. la Serigne Touba waxoon Cheikh Issa. ca jumaa yi njaareem ja. ca ba mu noppee. ba mu jébbal ko caabi yi. mu jébbal ko caabi yi. ak mag ñi. ànd ak mag ñi. Serigne da wax ne ko. Serigne da koo wax ne ko. Issa. sa tabax gi sa tabax gi misbaahu ahli samaa yi. misbaahu ahli samaa yi. wa najaatu ahlil ardi. moy lampam ñu ci kaw. moy muccug ñu ci suuf. ku ci tek sa ci tabax gi mu neex ko ci xolam. mbiram dana ci yéwee ne àdduna ak alakhirah Cheikh abdul Ahad mbake bi mu liggéeyloo Serigne bara armel yu yees yii. muy Baqiya. mu wàcc ab liggey ci bir liggey bi. Serigne nar Jenn agale ko. kero bi mu joxe Serigne Abdoul Ahad caabi dako wax ne ko serigne nar waxuma la yéen waa njeen ñi ko doon liggey waye kep ku fa jaar def ca daram rek mbiram dana ci yéwéne aduna ak alakhira waxuma la nak yéen ñi ko doon def lolé nak ya fi serigne Touba te mbooleem ñu la fi jitu won tambale ci Cheikh Mamadou Bachir Cheikh Mouhamadou Moustapha samak ju bax ja Cheikh abdullah Cheikh Salihu sa way jur yi ak sa mag yi fi jaar yëpp ñoom ñëpp làq nga seen ngërëm kon làq nga ngërëmul sëñ Tuubaa noo ngi ñaan kon loolu yi nga fasal nu ko ci suñ liggéey bii te boo ko ci fasee danañ ko am noo ngi lay sant bu baax di la gërëm bu baax liggéey bi nag niñ ko liggéeyee ñi ko liggéey ñëpp ñi ko liggéey ñëpp taalibey kër gi rek lañu. taalibey kër gi rek lañ. jëggaani wuñ fenn dara. jëggaani wuñ fenn dara. liggéeyu murit lañ ko liggéey itam nag. liggéeyu murit it lañ ko liggéey. aca murit rek. aca murit rek. maçon bi bi jiite yam ko àndal. yam ko àndal. taalibey kër gi bi ki ko def. taalibeb kër gi. architecte bi defar plan bi. waaye architecte bi defar plan bi. bi ñu noppee bi ñu noppee. ba fi ñëwee. dana li ma leen joxoon. dana li ma leen joxoon. bàyyiwu leen ci dara. bàyyiwu leen ci dara. kon sant nañ bu baax kon sant nañ bu baax.